ñoo ngi sant yàlla mi ñu may kàttanal dellu si waat jàkkaarloog seen télévision bi di sunu média di sant yàlla di ñaanal sunu jigéen soxna ndey yàlla yàlla dimbale ko ñaanal ki nga xam ne mooy maam Seydi moom mi nga xam ne mooy jàpp ci liggéey bi ba ngeen mën koo dégg fu ngeen mën a nekk ñu ngi sant yàlla dellu si waat tey sunu waxtaan ànd ak xol bu métti bu naqadi ànd ak it gàcce goo xam ne tegu na suñ kaw ñun jullit ñi rawatina Afrique waaye Sénégal ndax lii kat mu ngi xewee ci suñ biirum réew mu nekk loo xam ne metti nañu amuñ lenn luñ ko mën a kaasee lu mooy kàddu gi ñuy yëkkati yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam jàngaloon ñu ne saa boo xamee ne am nañ lu ñu métti suñ ko mënee kaas ci doole ñu kaas ko ca. suñ ko mënta kaas ci doole suñ ko mënee kaas ci sunu làmmañ yi ñu kaas ko ca suñ ko mënuti tamit ñu naqarlu ko ci sunu xol ñun nag ñaar yi yàlla may nañu ko mooy kàddu goo xam ne suñ ko yëgatee am na fu mu jaar ba ñenn mën koo dégg ñu ngi koy sante yàlla ci loolu waaye beneen bi tamit yàlla dimbali nañu si mën nañ ko naqarlu suñ xol yi métti nañu naqarlu nañ ko muy li xew fii ci Sénégal mooy ñoo xam ne dëgg dëgg dara yitteelul leen lu mooy ay caaxaankat yoo xam ne ñëw nañ rek pour topp seen bakkan ak def loo xam ne bokkuloon ci njàngalem yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni ñi nga xam ne ñoo nekk fële ca région Kolda ca ay nit yoo xam ne dëkkee fa di oote seen ab yonent ma ne dëgg dëgg nag seen wax ja alquran weddi na ko narloo na leen waaye tamit boole na leen ca caaxaankat yu mag ya ndax yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama alquran moo ñu jàngal ne ginnaawam yonentu dootut ñëw gannaaw yonentu yàlla muhammad képp ko ooteeti ne ab yonentu nga yow dëgg-dëgg alquran moo ne yow dëgg-dëgg sa wax ji du dëgg ay nar la waala kulli xaalin nit ak mankiim dana ko jaral nag ba dugg ci loo xam ne safara la koy jural waaye du ko xam waaye lépp nag maa ngi leen di wax ne yàlla waxoon nañu ko ci alquran ne dëgg-dëgg ñun buñ nekk ñoo xam ne ci kaw suuf ñun ay yàqkat la ñuy doon yàlla waxoon nañu ne ñun am na ñoo xam ne seen xol ya dañoo feebar feebar googu ñu feebar nag dëgg dëgg nag kenn mënatul leen caa gindi sax ndax ñoom dem nañ ba kare ca feebar xol googu fi qulubihim maradun fa saadahum allahu marad walahum azabun alim bima kaanu yukazibuuna dëgg-dëgg nag ñoom ay caaxaankat lañ mooy ñi le nga xam ne ñoo nekk ca Kolda wa isa qila lahum laa tufsidu fi lardi qaalu innama nahnu muslihuun waaye nag ala innahum humul mufsiduun walakin laa yashuruun yàlla waxoon na bu leen nekk di ay yàqkat ci kaw suuf ñoom ñu ne déedéet nekkuñ ay yàqkat waaye dëgg-dëgg ñun duñ ay yàqkat way yéwénalkat lañ ci suuf yàlla ne waaw yooyu dëgg dëgg nag ñooñu ñooy yàqkat yi ci kaw suuf na am ñooy ay yàqkat ndax ba ñëwee man sax damay wax ne toll nañ foo xam ne di oote ne ñoom ay yonantu lañ ba seen waaye weesu na ñi doon ootee ci jamono yonantu yàlla muhammad ak ginnaaw yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci waaju bon kàccoor ba narkat bu mag ba fenkat ba mooy musaylimatul kazab musaylima mi nga xam ne waxoon na yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam suuf si ñaari xaaj la genn wàll gi yaa ko yaay doon seen yonantu genn wàll gi ma ilif ko doon seen yonentu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woon ko ca wax ji fasaxam jooja waaye nag dëgg-dëgg musaylimatu kazzab li muy bon bon mbonam gi eggut ci wax ne am na benn téere bu mu indi te dëgg-dëgg moom lu muy bon bon waxam ja sax ca arab la doon doon waaye ñii nga xam ne ñoo nekk senegal tey ca fële ca région bu Kolda di oote ne ñoom ay yonent lañ waxuma dara waaye ñoom ñu ne dañoo am téere boo xam ne ñu ngi koy tuddee jam-jam padaar jam-jam padaar bi wax la joo xam ne ñoom si ñoom wax nañ ne la muy tekki mooy xam-xamu yàlla loolu du waxu dara waxu kasaara la wax la joo xam ne dëgg-dëgg jëmut kër jëmut fenn tamit loolu nag ñun war nañ cee bàyyi xel wala kulli xaalin yàlla doon na tëgg wala yàlla sampoon na ndëndëm pour laaj ñi nga xam ne ñoo doon weddi alquran ak yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama yàlla na leen su ngeen mënee def lu mel ni aw saar wala lu ko niru liñ jox yonent bi indi leen ko yàlla na leen wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina faatu bi suratin min mislihi wad'u shuhadaakum min dunillah in kuntum sadiqin yéen su fekkee man ngeen a def loolu andi leen ko wax ji waxuma leen ko yéen rek waaye seen ponkal yu mag ya sax laa wax ñoom ñëpp buñ ko mënee nañ dajaloo du tax ñu man ko yàlla mu ne comme mënu leen ko nag fa in lam tafaalu walan tafaalu fattaqu naar allati waquuduha annaas walhijaara uhidat lil kafirin yàlla na leen lool du ngeen ko def manu leen ko te du ngeen ko mën mukk kon nag na ngeen ragal safara wi nga xam ne dëgg-dëgg safara woo xam ne ay doj lañ koy taale ñaal ñi nga xam ne nag ñoo weddi alquran weddi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama te war nañoo sant yàlla waaye tamit wax ji lii nga xam ne moo xew ci Sénégal suñ ko arrêté wul musiba la ñuy jural dëgg dëgg nag ñu ngi jàmbat tawat boo xam ne jaaxal nañu kenn mënu ci dara lu mooy yàlla ñu ngay ñaan pour mu sotti pareegut ñeneen indi seen caaxaan yu bon yi te lii yëpp dafa bokk ci loo xam ne moo gën a bon corona mii ñuy daw waala kulli haal lu mën a jur indi ko ci ay jafe-jafe indi ko xeññ ko ci jàmm yàlla wàcce mbugal ci sun kaw kenn xamul nu mu toll maa ngi yëgate sama kàddu di ñaan yàlla képp koo xam ne am nga cër mën nga dara. wala sa kàddu de bu jógee nit ñi dégg ko maa ngi ñaan yàlla nga yëgate sa kàddu wax ci mbir mii nga xam ne mooy mbir mi nu mel ci ki nga xam ne moom la ñuy wax Alassane Mbàkke wax ne moom dëgg-dëgg yonantu la ñoom sax ñu tabax tabax seen kaaba ak bopp tabaxi tamit seen baytimaal wax ne dañ ciy dimbalanteeg jullit ñi wala dañ ciy dimbalanteeg nit ñi ñoom sax kenn du leen boole ci eh, jëf jooju nga xam ne dëgg ñoom moom la jullit dëgg war a jëf te loolu mooy jikko ju rafet waala kulli haalin dëgg la ñoom seen oote bi wax nañ ne yàgg na lool ëpp na ñaar fukki at ak lu teg waaye nag dëgg-dëgg yàlla may leen ndam ndax bañ ko njëkkee ote wax na suñ daan wancale bant bu tabaski jotaan ki nga xam ne mooy seen njiit bu wancale waan bant kum dal lay tabaske bu njëkk ba doomam la dal mu tabaskee ko ñaareelu at ba mu wancale bant ba bant ba dal doomam mu ne da koy rey tabaskee ko doom ji na ko may ma ma jàpp doom ja dugg ca biir jël fetal dal di duur bàyyi ja mu dee mu ne dëgg dëgg na gannaaw dee gi benn la man tamit ma ray la rek mu jeex tàkk yàlla ko nattu tey nag ñu ngi koy oote at maa ngi wax ne nguur nañ jóg ci lii mbooleem ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi nañ wax ci lii am na ñu ci wax ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax di ñaan yàlla barkeel seeni kàddu waaye dëgg-dëgg nguur su ko neexoon caaxaan yi yëpp jeex fi ndax ñoom mën nañ ci dara am nañ matuwaay bi am nañ tamit dëgg-dëgg permettre nañ leen ñoom ñu attaquer leen yàq seen pexe ya teg leen ci yoon wan leen ne leen ñun jullit lañ réew moo xam ne boo fi duggee dañuy wax ne quatre-vingt-quinze pour cent des musulmans lañ wala dëgg-dëgg réew moo xam ne boo ci duggee wax nañ ne quatre-vingt-dix-sept pour cent des musulmans lañ caaxaan bu mel nii nekk fii ñu dugal ko ci biir diine ji nga xam ne ñi jiite diine ji wax nañ ne ñoom ay jullit lañ maanaam ci wàllum nguur ga ñoom ñi nga xam ne ñoo ko jiite. waaye dëgg-dëgg seen yaa yaafus ak ñàkk leader bu dëgër ci diine moom moo ñu sonnal ñun senegal maa ngi ñaan yàlla képp koo xam ne am nga kàddu mën nga ci dara nang ci jot nang ci jog ñun ñëpp ñu ànd ci takkoo naqarlu nañ ko métti nañu dëgg-dëgg ruslu na rusloo nañ Afrique rusloo nañ Sénégal rusloo nañ jullit ñu dëkkee Sénégal dëgg-dëgg lii de dëgg-dëgg xaaruñ ko woon ci sunu réew mu tedd mii nga xam ne ay nit ñoo xam ne jëfal yàlla rek. takk seen ndigg góor góor la ba yàlla may leen cër ñu bind jàngale samp ay daara mokkaloo nit ay alquran jumaa yëpp ñu samp ko fi bokk ci ay nit yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek lañ daan bégee dëgg dëgg nag ñun lu mel noonu wala dëkk bu mel noonu ku fa dëkk war ngaa am beneen jikko bu moyeeg oote ne yonent nga dañ laa yónni wax la joo xam ne jëmu fenn maa ngi jéggalu ci kàddu yi di ko yemale fii di ñaan yàlla mu dolli jàmm ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yal na yàlla yàq pexeem caay-caaykat yi yal na yàlla sànq pexeem caay-caaykat yi képp ku jóg pour def caay-caay ci diine yal na yàlla sànq sa pexe yal na yàlla toroxal leen yal na yàlla dimbali ñu yal na yàlla saxal ñu ci njub saxal ñu ci ragal yàlla topp yàlla topp sunna yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam haqqa qadrihi wa miqdaaril azim alhamdulillahi rabbil alamin